gannaaw bi ñu na kon na imam yokk waxtu bi tuuti. <laughs> ñaanal ñaanal imam yokk ay minutes. waaw mais xam ay 4 laa ko yëg di ñaan borom bi yàlla na borom bi jéggal ko ak góor gi njaay moom ñun li ñu mën rek mooy dalal suñu xel te ñaanal ko yàlla li ci jiitu mooy ahlu sunna la sunna la sonnee woon sunna la bëgg xoola nekk ndaw dund sunna ba âge bi mu toll ba génn ci àdduna loolu mat na yaakaar lépp lu mu def ci ay njuum te yàlla na yàlla jéggal ko ko lépp li mu def ci lu baax yàlla na ko yàlla yokkal te kat yonent bi nee na yàlla mi ngi ci njortu jaam ni te ñun ñëpp suñuy njort ci moom rafet na way jur la boo xamante ni nekk na amiru falaa diire bu yàgg a yàgg a yàgg yàgg nekk na ko ko de boo xamante ni diire bu yàgg a yàgg te bëggoon diine lool lool man li ma metti ah 21 ans man li ma metti dafa bokkoon ci samay soppe dafa bokkoon ci samay soppe lool lool lool léeg-léeg doon na wax doom ji mu woo ma mu jox ma ko mu wax ak man ay kàddu wax dëgg yàlla wax na ma ba sonn ne ma dama laa bëgg te yàlla tax léeg samay doom wan ma ci ay kii yooyu def ak yooyu damay kontaan may wax ni ndaw yu mel nii day ñu ngi ñaan yàlla mu bëri moo tax bi ma ko kii ay 4 gis ko très sérieusement am naa lu ma métti lool ndax waroon naa teew waaye nag yàlla subhanahu wa taala moom moo dogalee noonu yàlla yàlla jéggal ko na ko ñëpp ñaanal yàlla yàlla jéggal ko incha allah rabbi alhamdulilah mbokk mi moom xam naa si question yu jiitu yi la. moom xam naa seytaane daf ko xawoon mën. maanaam kii daf euh, mu si jaar euh, mu si doom. léegi nag li ñu doon laajte mooy ndax kooku moom. mën na ko denc bu am nit. mën na ko jël comme soxna. laa sakka mën na ko. xam nga lu bari ci diine ji aada da cee dugg di ko yàq. aada da ci dugg di ko yàq mooy mag ñi ci buntu yar lañ ci jublu woon ne nit bu fekkee séq naag nit duñ ko ko may liñ ci jublu woon mooy maalik ya ak ñu mel ni ñoom dañ doon wax ni góor bu seetoon jigéen wéet ak moom balaa ñu ko ko may nañu def istibra ñetti weer istibra nag boo koy def mooy xam ndax am na dara wala amul dara waaw kii bu fekkee ni ëmb na am na doom koy jaratul istibra mooy xam nañ ni ëmb am na doom am na mais mën na koo takk amul benn diine bu tere mu takk ko te takk ko sax nag la xel nangu takk ko la xel nangu ndax jumte dal na leen ba séq nañ ñoom ñaar doom am na ca walla amu ca kon takk ànd bi moom moo gën ci ñoom ñaar insha allah rabbi alhamdulilah bi ñoo bokk benn tur mais zakat dafa am heure sadaqa amul heure zakat mooy luy xaar at ci alal boo am mbay la wa aatoo yow yawma xasaadi bu dee loo bay la bu ñu demee ba récolter nga génn ci wàllam bu fekkee ay jur la nombre bi ñuy soxla bu ko matee danga koy génneel at mu nekk bu dee or la bu dee xaalis la loolu mooy zakat mais sadaqa mooy loo xamante nit ki da koy génne ngir jaamoo ko yàlla dàquwantewul nag borom bi li mu tuddee azaka tamit sadaqa ndax ma sadaqaatu ba mu wax foofu li mu ci wax moom mooy zakawaat yi lay wax innama zakawaat kon nag sarax ci boppam ak azaka bokkuñu azak àq la bu war ci ki yore sarax nekkul lu war coobare la xaw ma comprendre nañu wax di wala déet azaka dafa war ci ki am su ko defee su ko deful da koo war moo xam jur la moo xam or la moo xam xaalis la sarax nag nekkul lu la war yaa koy def wa anta shahihun sahih wér te nay nga joxe kon sarax day ëpp doole sax azaka insha allah rabbi alhamdulilah ku nekk ak sa ak sa cër hmm. ak euh, li nga soxla kii moom jigéen la dafa ah loolu de wax dëgg yàlla mu baal ma ci reetaan bi daa waaye reetaan loolu nag moom dara jaaxalu ko lu wul position bi kaay ma wax la leen ñetteel amul jabar ñépp aawa lañ ngeen ni ma oustaz waxate nga de <laughs> jabar ñépp aawa lañ ku aaye rek sa moroom nekk ñaareel balaa nga koo weddi na ñetteel aye aawa mooy ñetteel moo jël place ñaareel moo ci topp su ñaareel aye aawa ñëw nekk ñaareel kon nii la day wër position amul solo seytaanee koy def di la ko naxee te it nag gis nga nekk ñetteel wala ñaareel jàmm dong nga ci nekk xanaa xamoo kër gu bëri jabar jigéen ñi dañuy noppalu bu baax kër gu bëri jabar jigéen ña dañuy am jàmm da ngay noppalu da ngay téye sa bopp yàlla la bind ngay koo xamante ne chaque munoo munoo contrôler sa bopp weer wi yëpp am heure boo xam ne da ngay aye heure boo ayewul nga dem toppatoo sa bopp noppalu defar sa bopp loolu jàmm jooju ñu bëgg la koo xañ ne la non non aawa aawa xool aawa ay coow la da ngay dégg aawa buuru këram nax la moo tax bi ñaareel ñëwee ñu ne ko xarit di jëkkëram xam nga loolu yëpp ay nax la mais aawa amut balaa nga ko wedde nga dem ci naar yi xamuñu ko sax demal ci yeneen aada xamuñu aaw xamuñu ñaareel ñoom jabar daal jabar la point soxna la. alhamdulilah. tey yàlla dafa dogal soxna Sall di yëngu si mu nekk tam loo xam ne lu am solo la loo xam ne nit ñi dañ koy xam naa boobu léegi mooy topp. Hmm. xanaa ay yoon. ulcère kay wax naa ko fi ay yoon moom kay yéen ñi koy bind yéen ko waroon jox audio yi rek ala kulli haal ulcère estomac li ñuy wax maladie gastralgique reflux gastrique seen faj gi ci gën sungufu nepp nepp utal sungufu nepp nepp sungufu sump nepp nepp ak sump ñoom ñaar ngay jël jëla neb-neb bi xaaju kaasu ataaya sump bi jël ci kaasu ataaya boole leen ñoom ñaar soo leen boolee ñoom ñaar nga lay ko ba mu set ba mu baax nga teg saa boo lekkee ba pare booy añ jëlal kuddu kafe nga def ko ci kaas nga jël meew tàngal ko def ci teg ko añ ba suur nga naan ko bu fekkee nag meew da ciy ànd toujours booy añ moytul jën ndax jën ak meew du ñuy ànd su fekkee yaa ngi añ te nga war a naan garab bi ànd ak meew bi bu lekk jën xam nga kenn mënu buñ la nee baal jën mënoo bàyyi lekk bi mais jën ci boppam moytu ko wàññi ko bu baax soo lekkee rek naan ko soo ko naanee balaa ngaa naanaat dara dara dara dara bàyyil quarante minutes ou une heure de temps su fekkee naankatu attaaya nga na nga bàyyi ba une de temps nga doog a naan attaaya waaye naan ko léegi rek teg ci ataaya moom baaxul ndax xam ngeen ni ataaya tamit euh, excitant la bokk na ci li nga xam ne dafay xaw a gas ulcère guro excitant la café excitant la jinjeer excitant la yooyu tamit bu fekkee nit ki dafa am ulcère na ko moytu te da ngay gis fan yi da ngay gis ñu bëri di jëm ci wàllu jinjeeram lu demee mais boo amee ci benn del moytu jinjeer wala boo koy def nga mixé ko ba du la loro loolu boo koy def añ reer ndékki

ay diabète feebar héréditaire la tubaab bee ko wax mais ba tey amagul lay yu juste yuy wane loolu loolu moom maa ko waxaat yëkkati sama baaraam chaque jour moo ko tubaab bi ci boppam xam nga ñun li ñu dal mooy complexe moo dal Afrique moo dal lenn ci asiatique yi gis nga tubaab bi moo ñuy manipuler ni mu ko neexee mooy jékki nañu feebar sàngam du wér ñépp gëm ko da nga koy dégg feebar bu dul wér amul du dëgg démb coow naa ceeg nit ba mu mujj d'accord pour ñu defal ko garab ma ne ko sëñ bi yow waroon nangu waxu xale yooyu feebar bu dul wér amul yàlla dogalul loolu nga ne ma lu tax maa anzalallahu min daa illa walahu kan moo ko wax yonent bi ndax xamut li muy wax feebar bu dul wér amul kay alimahu man alima wa jahilahu man jahila loolu mooy benn ñaareel bi gis nga jebet dafa bokk ci feebar yi ñu créé ndax tubaab bi def ci bokk xeexam Afrique ak population africaine bi ni mu bëree à chaque fois muy créer loo xamante ne suukar kese la suñu alimentation lépp suukar la mais ku mel nii da am problème ceeb bi lu mu def du suukar guro bi nag du suukar soo paree doo naan attaay doo bokk ci kafe gi doo doo def leen foo fooy jaar da am problème kon lekk yi ñuy jox moo baaxul. te ñun amuñu lu dul lekk yooyu rek la ñuy lekk su ngeen xoolee soow yu ñuy jox yi ñuy jaay yi ñuy jaay nga xamante ni day fermenté ak soow yoo xamante dañ koy dañ koy denc xool leen tey jii wallahi lépp kenn nemewu koo wax mbooleem matière conservatoire yi ñuy conserver comprimer yi di ko conserver alimentation lekk yi yépp xam ngeen duñ koy conserver ah gélatine wa ma adraka ma gélatine xam ngeen gélatine deru mbaam mbaam xuux comprimé yi ngay naan moom lañ koy kiyee te yow da koy naan li ñuy denc di la ko jaay soow yeeg tàngal yeeg chocolat yeeg yépp moom lañ koy conservé moom lañ koy conservé te da koy lekk loo ci mën avec ça à chaque fois ñu lay indil ay feebar parce que ñoom ci la seen mbir di doxee yooyu nag comme ñu ngi koy dund ñu ngi dund kaarisa bu jafe-jafe mais jabet day wér insha allah alhamdulillah jabet day wér ko weddi nag boo dee médecin ñëwal man maa ne day wér man maa ni day bu dee ci tubaab bi nga aju indil ma say yëpp jabet day wér te insha allah lii ma la wax nii maa ngi lay jox benn remède boo xam ni soo ko bàyyiwul insha allah da nga tàggoog jabet soriwul dara ngéejaan dong la xobu ngéejaan xob xobu ngéejaan foo toll xobu ngéejaan day dindi lëndëmu bët xobu ngéejaan day faj ndigg luy metti courbature ngéejaan da koy dindi ngéejaan dafay faj mboolem feebar bu nekk ci biir ngéejaan day dindi mettitu bopp ngéejaan boo amee jafe-jafe ci yaram bi gaaw a diis da koy dindi lépp lu aju ci suukar da koy raxas ba mu set wecc ngéejaan da koy raxas siti lépp mbooleem lu jëm ci wàllu dermatose ngéejaan da koy traité jëlal ngéej ngéejaan jël ko nga togg ci takk bi ñu ngi koy jaayee 200 francs muus bi ngéejaan nag xob bi xas bi reen bi ñoo tolloo amul benn différence am na ci garab yoo xamante ni xob xob bi soixante-dix pour cent la écorce bi 40 pour cent la racine bi 80 pour cent mais ngéejaan lépp 100 pour cent la écorce bi racine bi ak feuille bi boo ci am togg ko ci 2 litres après chaque repas naan ci kaas saxal ak moom ngeen continuer balaa ñuy wax ay 6 mois bu soobee yàlla suukar bi feer kaas bu bu mag moom lu muy naan na nekk kaas bu mag naa na romb dikk aussi bu dee xale na ci naan kaasu ataaya loolu def ko sa bopp nga génn ñu ne la feebar jabet du wér day wér incha allah rabbi. Euh, bi comme wax euh, bi moom nee na parce que euh, question am si ki nga xam ne mu ngi saaga Assane Diouf. Hmm. maanaam daal loolu la Euh, alhamdulilah ñëpp ko gis mais xam nga Sénégal moom fi ñu jëm àggaguñ àggaguñ te yàlla bu ñu àgg gis nga fi ñu jëm président mënu ci dara ministre mënu ci dara police mënu ci dara gendarmerie mënu ci dara sëriñ munu ci dara parce que dañoo bay bayal nit ñi seetaan leen lan moo ko indi nguur bu dee fowee nguur ñi mu jiita di ko fooye te institution yi nguur yi ñoo koy fooye ñu baal ma nag xasuma leen mais dañ koy fooye tey li yoon gën a bañ ñi nekk ay kilifa ñoo koy def te yoon du dal seen kaw baadoole yi lu ñu def pare na bi ñuy campagne lu ne ngay dégg avant campagne lu ne ngay dégg indi fa ay problème ethnicisme ah bu ñuy nangamee ñii nangam bu ñee nangamee ñii nangam bu ñu demee ba nga xamante ni léegi anarchie mooy dox ci dëkk lu neex waaye da koy def gis nga nit ñi kenn mënu leen a tee wax kenn mënu leen a tee nelaw kenn mënu leen a tee lekk kenn mënu leen a tee dox kon teel li nga attan bàyyi li nga mën xam nga nit loo ko bañ bañ mënoo ko ne boo nelawee maray la boo ko nee boo nelawee maray la toog di ko séentu xàcc paaka bu yàgg yaay njëkk xaram parce que force la doo dem douche boo ko defee maray la mënoo ko. kon dafa am yoo xam ne nit a ko moomal boppam président moomu ko partisan moomu ko parti moomu ko yar nag ak teggin ci fépp lañ ko soxla waaye raw na ci njiitu réew njiitu réew yonent bi dafa tere daf ko tere ñu opposé ko waxantuma ak di wax ci moom yu ñaaw su bonee bonam la yàlla dana ko àtte su baaxee réew mi am ci yàlla mais nag dëgg-dëgg yëkkati ay kaddu di saaga moom li tax saaga ci ay ay téléphone yu mel nii bon mooy mën nga koo tuub yow mais téléphone dina tuub ku déglu lu bees gis nga bind saaga ak wax saaga ñu enregistré ko ñoo yem balaa ngaa xam ne bind saaga bon nga bind ci miir bi nangam saa boo ko rombee rek saaga beesaat na ku romb saaga beesaat na noo koy dindee ci nit ñi kon lii doxal ab dëkk moom mooy nañu moytu wàllu xeet nañu moytu wàllu gënalante nañu moytu defal ñii bàyyi ñii nañu moytu ñii tooñ ñu aar leen ñee tooñ ñu lor leen nañu ko moytu bu baax a baax a baax a baax loolu nag li mu def ñaaw na waru ko woon def ndax di saaga lu toll ni président moom moom boppam lay xeeblu daf koy def foog ni moom da ciy yëkkati ko mais da ciy gën a xeeblu ñaaree bi koo xamante ni ñëpp dañuy wax naan diw li muy wax saaga saaga saaga daal moo rafetul képp ku ne man de wax dëgg yàlla fu ma connecté woo ba yam ci dama koy romb du ko déglu sax. parce que tamit mag warta toog di déglu ay saaga jullit warul toog di déglu ay am nga leneen du la ëppoon solo ko déglu ay saaga ubbi di xool diw mi ngi saaga président wala mi saaga nangam rombal nga ubbi kaamil bi jàng alxuraan am ci tuyaaba moo gën loolu moo gën ngay déglu ay saaga kon yooyu daal vraiment amul benn solo nañ ko moytu ñun ñëpp incha allah rabbi yàlla ñu yàlla aar aar ñëpp